daleen na jàmm ci Dakaractu Retro mbokk yi ginnaaw nuyoo bi ñu fas yéene ñëwaat ak yéen ci xibaar yi gën a fës ci fan yu ñu weesu ci Dakaractu def ci ab taxaw seetlu dibeer dibeer ji tombeel ak fukki fan ak ñeent ci weeru mars sénégalais nag daal di yeewoo ak xibaar bu tiis ginnaaw ba ñu yogee génnuk àdduna ak Thione Ballago Seck moom mi nga xam ne moo nekkoon liit vocal bu Ramdan daal di dëddu àdduna ginnaaw ba mu tëddee feebar lu yàggul dara tolloon nag ci juróom-benn fukki at ak juróom-benn moom moomee Thione Ballago Seck bañ koy yóbbu nag ci këram bu mujj fii ci àdduna rawatina ci cimetière musulman bu Yoff mbooloo bu takku ñoo ko gunge Dakar Actu ñëwaat ci bu baax ci dibéer léegi Dakaractu ci beneen fànn ñëw ci lan moo tax ñu jëlee eh, ki nga xam ne mooy Guy Marius Sagna Birame Souleye ak eh, ñoom Assane Diouf eh, fi ñu nekkoon daal di leen yóbbu ca prison bu Sébikotane def ci nag ab taxaw seetlu bu yaatu ci xibaar yi nga xam ne Dakaractu daal dina ko fësal jëm ci wàllu boobu ñuy xam ne nag ginnaaw jamonoy mbas bi nga xam ne moom la ñu jànkonteel autorité pénitentiaire yi nag dañoo daal di yëkkati Cap Manuel def ko benn zone de mise en quinzaine maanaam xam dañ leen faa buñ fa xassé ba am 15 jours dañ leen di transférer et transféré ci yenen maison de correction yi altine fukki fan ak juróom ci wéru mars marché central au poisson bu kaolak am yëngu-yëngu marie mareyeur ya nak dañoo mer bu futu té dara waralu ko rek camion yi nga xam ne ñoo yab jën té jógee fofé ci Mauritanie war a dugg fii ci Sénégal té nak autorité sénégalaise yi daldi leen bloqué ci frontière ba ba tax mareyeur yi jàpp loolee ñu def day tax euh, marché yi ñak jën waye tam euh, mën naa tax ba li nga xamné euh, moy ñagas-ñagas juddu digënté Sénégal ak Mauritanie Mauritanie yi sax mën nañu dem ba tey seeni licence de pêche te loolee mën naa bañ a marayeru sénégalais yi ba légui xibaar yi nga xamné Dakar ci ñëwaat nañ ci appelu layen yi ren ji tam ñu amal ko ci fukki fan ak juroom ci wéru mars bi nga xamné mom lañu la dal di koy amal nak ginnaw wote bi nga xamné Seydina Limaamu al Mahdi amal na ko foofe ca Yoff jàmmalaay mbokk taalibe yi nag ñëw ku si nekk respecté mesure barrières yi ci beneen wàll ginnaaw manifestation yi nga xam ne jotoon na am fii ci Ndakaaru rawatina ci pikin ñaar fukk ak ñetti Samba Boy nag daal dinañ leen teg loxo leen ñooñu nag ci gëstu bi nga xam ne ci def na ko si mooy ñi nga xam ne ñoo doon jéem a dajji gàpp bi nga xam ne mooy gabu Coris Bank boobu nekkee ca Pikine ca jamonoy manifester ya talaata fukki fan ak juróom benn ci weeru mars mars ñuy wax nag bi la yoon ci lu jëm ci wàllum xëyum ndaw ñi njiitu mi nag président Macky sàll euh, fas yéene ci xar tànku tubéyam euh, ba yëkk ci lu toll ci euh, juróom fukki milliards ci suñuy koppar fas yéene ko dugal ci lu ñu duppee ab fonds d'urgence loolee ngir taxawal ay liggéey yu bëree bëri ngir jébbal ko ndaw ñi njiitu réew nag fas yéene si taxaw bu baax ngir fexe rek ba koppar yooyu jëm fu mu war a jëm loole sax ba léegi ci gëstu yi nga xam ne Dakar Actu def na ko si ñuy xam ne ni

doon nañ ko am ci autoroute à bi wàllum santé ginnaaw ba nga xam ne tàmbali nañu campagne de vaccination bi fii ci Sénégal njàkkare nag moo commencé juddu ci xelu askan wi ginnaaw ba ñenn ñi jàppee ne vaccin yi rawatina bii di AstraZeneca day indil gàllankoor ñi nga xam ne daal nañ koy jëfandikoo loole jëwriñ bi ñu denk wàllum santé bi di Abdoulaye Diouf Sarr doon ci dalal xel yi bu baax doon xam ne ne nag fi mu toll nii bu ñu sukkandikoo si waa organisation mondiale de la santé amul benn gàllankoor boo xam ne AstraZeneca bi mun na ko jural ñu koy jëfandikoo docteur Amadou Sall nga xam ne moom moo jiite institut Pasteur euh, bu Ndakaaru di feelu euh, Diouf Sarr di xamle ne moom itam docteur Sall ne AstraZeneca bi dara new ci te itam amul benn kaa boo xam ne gis nañ ko si ginnaaw ba ñu ñakkoo ba pare ca nooto guy jama ay toni pomme de terre ñoo commencé yàqu loole nag tax ba producteurs yi daal di taxaw yuuxu wàllu ñoom béykatu pomme yi nag li ñuy jooy comme chambre froide waye itam eh, di ñaawlu lu nguru eh, nguuru Sénégal ubil marché pompiteer bi ñi nga xam ne eh, ñooy waa Sénégindia ba tax ñom li nga jaay nañ ko mënuñu ko daldi di ci marché bi ba fukki fan ak juroom ñaar ci wéru mars ñuy wax nak ci lu jëm ci affaire sud Beauté wala bok affaire bi dox digënté Ousmane Sonko ak ndaw sii di Adji Sarr mom mom nak di Adji Sarr don def ap jakarlo ak lenn ci taskatu xibaar yi doon ñëwaat ci ni mu ni mbir yi ni noonu la demee moom aji Sarr di wax ni Ousmane Sonko na waat ci alxuraan bu dee rek mësuñu sekk dara ñu wax ci beneen wàll jëm ci wàllum nguuru Sénégal rawatina administration bi xeetu woto yi ñuy faral di utiliser lu jëm ci entretien beeg carburant beeg li ni mel deux cent quarante six milliards de francs CFA la ñu dépensé diggante deux mille douze ba deux mille vingt loolee nag tax ba njiitu réew mi président Macky Sall fas yéene yeesalaat mbir yi ngir ñu gën a wàññi dépense yi fexe rek ba koppar yooyu di dugg ci wàllum oto ak carburant yi ni mel ñeel administration bi ñu xool nan lañ koy wàññi ah, conseil des ministre bi nga xam ne amoon na ci mercredi bi passé ah, kii nag di Thione Ballago Seck ñi daal di koy décorer ginnaaw ba mu dëddoo àdduna daal di koy tabb nag commandeur de l'ordre national du Lion di ab décoration ah, bu ko njiitu réew mi jébbal bu ñu ñëwaatee ci li nga xam ne mooy mbirum kii di Guy Marius Sagna ginnaaw bañ ko toppee participation à un mouvement ko ci ay yëngu-yëngu yoo xam ne euh, mun na jax-jaxal wala taal réew mi moom nag lundi 22 mars lay jàkkaarloo ki nga xam ne euh, mooy juge bi moom moom mi nga xam ne mooy Guy Marius Sagna alxames fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mars ñi nga xam ne nag ñooy waa SYNPICS di syndicat bi ëmb ñi yëngu ci wàllum tas xibaar ak li mel ñoom nag ñu ngi soñ ñëpp ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllum média di journaliste cadre ak yi ñu daal di porter képp koo xam ne di leen menacé euh, ci seen wàllum liggéey wàllum Covid 19 mbas mi rawatina li nga xam ne euh, moo campagne de vaccination bi euh, kii di professeur Seydi nag moom nag yëkkati na ci ay kàddu li mu wax rek mooy ne moom ba sañoon ñu continuer di utiliser li nga xam ne mooy vaccin bi di AstraZeneca ndaxte njëriñ dong la ci gis wàllum Covid 19 bi ba léegi waaye bi la yoon ñu wax ci wàllum insécurité alimentaire maanaam xeex lépp lu jëm ci xiif ak lu nu mel ab programme bu am solo nag jëm ci cantine scolaire yi la nguuru Sénégal euh, fas yéene euh, daal di euh, tàmbale dugal ci nag lu toll ak juróomi téeméeri milliards ak lu topp loole nag ngir fexe ba yenn école yi xale yi nga xam ne ñoo fay jàngee rawatina ci wàllum public bi di mën a am lu ñuy mën di jëfandikoo ci wàllum lekk rawatina ci zone yu ci mel ni Thiès Kaolack Saint-Louis Kolda Sédhiou ba Ziguinchor di ay gox-goxaat yoo xam ne dañ leen tànn ginnaaw ay saytu yañ fa def ci alxames bi ba léegi ñuy wax bi la yoon ci lu jëm euh, ci wàllum euh, terrorisme ab procès nag moo nekk di daw fi mu toll nii ñeel ki nga xam ne mooy Mamadou Diaw di ab franco malian ginnaaw ba mu tegee tànkam fii ci Ndakaaru nag lañ ko teg loxo fi mu toll nii nag ginnaaw ba procès bi tàmbalee ba léegi 29 avril bi ñu jëm la war a xam li nga xam ne mooy vertigam bu deful ndànk nag juróomi atu kaso euh, ñoo ko ci nar a fekk ginnaaw ba ñu jàppee ni dafa laalee ak di wàcc ay acte terrorisme foofee ca France laata muy ñëw la dossier sax ñu ci tudd ay doomu Sénégal ku si mel ni Ibrahima Ndiaye Ali ak Moustapha Ndiaye ñoom ñooñee sax ñu jàpp ni dañoo laale ci wàllu woowule. aljuma fukki fan ak juróom-ñeent wàllum braconnage nag maanaam samba boy yuy faral di rëbb ak rey malay di jaay seen deret yi nu mel te amuñu ci sañ-sañ. ñaari samba boy la ñu teg loxo fofé ci parc niokolo ba bu Tamba ñom ñoñu nak yoron ay deru buki ak ay ivoire manam ay xétu sel ñu jëlé ci ay éléphant niki nono ay deru léopard lolé nak am ginnaaw direction bu park national bobu dalde di lëkkaloo ak commissariat central bu Kédougou ak procureur bu Kédougou ngir daal di leen jàpp loole sax tax ci article bi nga xamné dakar actu def nako ci ñuy laaj ndax lii buñ ko dakalul du gàllankoor walum albi bi rawatina mala ci nekk ci beneen wàll ab plainte la waa appel euh, daal di jëbal euh, procureur ginnaaw ay menaces ak i xupp yu ñu yëkkati euh, teg ko ci kër yëglekaay yu si mel ni leeral ak Dakar Actu Simpix nag ñoom di gën a rafetlu loolu te nag di ñaan ñi nga xam ne ñoo yor wàllum justice bi ñu taxaw ci taxawaay bi mu waree bu ko defee rek ñu bàyyi di xoqatal taskatu xibaar yi rawatina bu ñu nekkee di def seen liggéey na mu waree ñu leen ci menacé ka saaga ak yu ni mel loolu yëkëti woon ab plainte jébbal ko procureur de la république ah, bi la yoon ñu wax ci lu jëm ci wàllum accès à l'information pour lutter contre la corruption maanaam ah, fexe rek ba ñu xeex ger fii ci Sénégal waaye leeral ba lépp luy information ak li ni mel ñu fexe ba askan wi jot si ñëpp jot si mu leer loolu nag di xeex boo xam ne ah, forum civil bi nga xam ne kii di Birahim Seck moo fa nekk moom la ñuy xeex ngir jëlee fi li nga xam ne mooy wàllum ger ñu wax ba léegi ci alju ajuma bi ci wàllum politique dem ba parti réew mi bu Idrissa Seck Dakaractu nag nga xam ne ne kii di euh, Badara Gadiaga di membre euh, foofee ci secrétariat national bu parti réew mi bokk itam euh, ci cellule communication bi daal dina démissionné niki noonu nag ba Déthié Fall daal di itam démissionné ci parti réew mi mu mel nii ñu bëri nag fi mu toll nii ñu ngi bàyyi kii di Idrissa Seck wan ko ginnaaw ba léegi ci article boobu nga xam ne Dakaractu def na ko si ñuy xamle ne bu ñu deful ndànk kàngam yu bëri nar nañ fa bàyyeekoo ñu wax ci wàllum explosion euh, puits de gaz maanaam euh, explosion boobu amoon foofee euh, ca Ngajaga te ñu fay liggéey lu jëm ci wàllum gaz ak li ni mel ñetti weer ba lakk ga commencé foofa ca Ngajaga ba léegi nag mu mel ni ñi fa ne mënooguñoo fay taal bi nga xam ne moo fa am te amoon fa 19 décembre bi ñu jóge boobu ba léegi nag sapeur pompier ak ña fa nekk di góorgóorlu foofee ca commune bu Notto Gouye Diama ni lakk ba ba léegi euh, mënagul fay euh, fii ci Sénégal aljuma bi nag ci minuit euh, ci la état de catastrophe sanitaire bi nara jeex maanaam li nga xam ne nguuru Sénégal jëloon nañ ko ci ay mesures ki ndogal ngir xeex li nga xam ne mooy coronavirus bi ba tegoon ay couvre-feu ci région yu su mel ni Dakar ak Thiès ak yeneen i mesures mu mel ni tey jii lañ koy teggil population yi nga xam ne dinañ mën a noyyiwaat bu baax waaye nag ci jamono jooju mbas mi rawatina coronavirus bi continuer di def ay victimes fii ci Sénégal. ndaxte ci li nga xam ne jot nañ koo gis te Dakaractu ñëwaat ci bu baax a Sénégal nag daal di la barre des mille morts noonee la ka Dakaractu bindee ngir wax ni rek mbas mi mu ngi continuer di faat doomu aadama yi.